solo mu mel ni ñaari sax ñaari laaj yi la ñuy tëjee yaakaar naa ne boobu wax nga ko léegi incha allah vendredi mu war fee teew te bu jugee fu muy jugee fii la war a ñëw Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye ak ki nga xam moo di Bombardier revanche boobu turandoo lu doy waar la combat boobu combat royal la par anticipation par anticipation ndax lan Bombardier lu mu wax mooy Dakar bi saf ñetti yoon waaw dafa bëgg nekkaat roi des arènes Balla Gaye lu wax da bëgg nekkaat roi Balla ne man keroog ba may dajee ak Balla euh, Bombardier damaa feebaroon dem naa France entraîné naa ñëw naa. Bombardier ne ko na woon foo woon boo taxawee ma def la lu grand combat bu neex lay ne bu day waar waaw bu doy waar. neex lay doon. ah Turandoo noo xalaatee ci la war a jeexee ñoom ñaar parce que ñoom ñaar ku ci nekk Bal Bombardier di reculer. Balla day dem te Bombardier day dem. dañuy daje. mais lu doy waar de. bu ñu dajee ñaara fay feeñ doole ak bëre. ak bëre waaw d'accord. turandoo maa ngi jaaxalee ci fi nga xam ne Modou Xarañ Lo ak euh, Ama Balde fa laay tëjee euh, moom it mu nekk loo xamante ni combat bu doy waar la parce que dañ koy fàttaliku toujours tu man looy wax ci daaw dama koy jàppaat ba ren li nga njëkkoon def ci combat ba nit ñi di ci wax li wax bu bëri da nga leen a carrément nañu ñaanal euh, Serigne Fallou Ligue Nicolas. yàlla yàlla vraiment loolu da nga waroon delluwaat VAR sax. waaw VAR la nga li ma waxoon. day ñëw ci Serigne Fallou Ligue yàlla may na mu génn ci jàmm yàlla bu mu fa delluwaat yàlla bu fa kenn delluwaat mais Ama Baldé ak Modou dama lay wax benn affaire Ama Baldé moo amul lu mu perte ci combat boobu ah bon bankal sa baaraam ah benn ngi bu daanee Modou lan lay nekk roi des arènes ah, waaw roi non bu daanee Modou day nekk roi des arènes waaw bu ko Modou Lo daanee lu muy wàññi Ama Baldé day dem bëre moroomam moromam ay Gris Bordeaux bu boobaa mooy nekk vice roi kon keroog biñ ne arbitre sifflé na Ama Baldé ak Modou Lo ñu ngi léewtoo ku daal nekk roi des arènes Serigne Fallou Luc Nicolaï moo ko tëgg c' est un combat royal bu don dañuy takkal médaille ki ci daan dañ koy takkal médaille d'or ki ci des takkal ko médaille d' argent bés bu Ama Baldé daanee Modou Lo xam nga day nekk roi des arènes bu ko Modou Lo daanee lu muy wàññi Ama Baldé xale bu ndaw seelu bu ndaw la ko bàyyam tuddee du ko wàññi dara day day day wëlbatiku ay Gris Bordeaux. Mhm. ay ñooñu noonu ku ko ci saña bañ parce que dafa leen di wax ni bëree naa combat royal. ah bien sûr bien sûr. déggoo ma de. mais combat bi lu diis la kon ci Modou bi ñuy wax. ci non Modou amatul lu diis si moom dégg na daali ba noppi. kon jeex na Modou nekk na roi des arènes lan mooy diisati si moom. première année bi Macky Sall doon laaj réew mi en 2012 ak bi mu koy laajaat bi passé est-ce que benn la. boo xasee ba ba ba ba mos. waaw délice. Mhm. délice su trône dara dootu la jaaxale. moo Lo dégg na daal yi mooy roi des arènes ku mu mhm. neex ku mu naqadi mooy roi des arènes. Mhm. waa léegi lan lay amati lu muy daw bay daanoo day taxaw xale bay xaar. xale bay wuti moom lay taxaw xaar ko. macha allah. ma daanelee foofu trondo ñu di la santaat bu baax a baax vraiment ci disponibilité bi nga xam ni may nga ñu ko vraiment ñu fekkaat la sa gétt gi nga xam ne euh, spécial tabaski 2021 euh, mbokk yi mu mel noonu ak euh, sam Sambène famille ni ñu leen ko waxee saa su jot gis nga at bu jot nag ko ak jàmm gi info xanaa di ko bàyyi laat rek mu tëjee foofu daanelee foofu incha allah tamit ni ma ko waxee rek na client yëpp ñëw fekk si waat ko fi nga xam ni at bu jot saa su ne tamit ci taxawaay bi muy def ngir jàppale askan wi waaye tam askan bi tamit ñi ñeen tam di ko jàppale ki taxawaay bu bare bare tam dégg ngeen ni mu ko waxee ci wàllu sécurité tam euh, mu ngi koy sàkku bu baax a baax wàllu càccum njur gi dégg ngeen ni mu ko waxee tamit loolu nekk loo xamante ni vraiment lu lu rafet la trondo lay daanele li may daanele mooy sant jëmm ji Cheikh Samb mi Cheikh Samb yow laay waxal mm-hmm. sama goro la sama xarit la sama doom lay denc moom it xoolal dafa bàyyi léppam macha allah kii ngay gis nii lépp la bàyyi lépp léppam fi ñu toll nii xoolal léppam la bàyyi xoolal entrepreneur bu mag la tëj ay chantier am tëj ay liggéeyam di ma guddil di ma bëccëgal xoolal fi ñu toll nii sama ci man rek la nekk ba pare xar yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee Linguère mhm. moom moo leen indi ak góor gi ñuy wax ah, ah, Cheikh Matar Gaye nekk góor goo xamante ne sama waa ji foog mu gis la parce que dañ nekk nit koo xamante ne nit ku baax sama doom lay denc macha sama doom lay denc moo ma yar tabarkalla depuis mhm. yoon di ma bàyyi loolu ñaaw yàlla def mu bëgg ma lool kon lu yàgg dëgg la te ki nga xamante ne mooy gis liggéeyu 500 millions ne la kaay liggéey. kooku amoo fayam. ñuy ànd ci dëgg muy nit ku dëgg. bu baax bëgg doomu aadama. li nekk ci moom rek moo ne ci man muy baax moom laa xam ci kon yàlla yàlla na yàlla guddal fanam ba mu fekkee lépp teraangay njaboot. fekkee lépp barke na ko bu baax a ngi yéen it ñu baax ngeen waa jàmm ji info. waaw seen jàmm gën a yokk. jërëjëf macha allah kontaan na kontaan na ñuy gërëm tam suñu waa ja ah. barbaatu Pa Cheikh Gueye Cheikh waaw Cheikh Matar ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax di ñaan ñëpp jàmm ki sac xar yi laa wax moom laa dénkoon fii waaw mu sàcc xar yi déglu ma bu baax li ma la wax su indiwul xar yi fii ak vingt quatre man Lamine Samba dinaa la wax turam wax la santam tabarkalla turandoo balaa ngaa jóg at bu jot euh, man man ak yow ngay sama turandoo sama xar moom tout le temps dafa war di taxaw fële kenn waru koo laal ndax damaa war a bokk ci ci star yi. dégg li ma la wax. sa xar mu ngi fi. waaw léegi léegi dinaa la ko wan. waaw incha allahu rabi dans la semaine nga ñëw jël si ko. jeex na Jammou Ji FM ca kaw ca kanam. jërëjëf jaajëf jaajëf Jammou Ji info jërëjëf. am na solo.